wakkirlu wakkirlu mooy dëggu bi ngay dëggu ci wéeru bi ngay wéeru ci yàlla ànd seeg wóolu ko waaye tamit def sabab ya nga xamante ni moom la lislaam yoonal kon wakkirlu mënu see ñàkk ñetti mbir dëggu bi ngay dëggu ci wéeru ci yàlla wóolu ko yàlla dafay matale li mu digee waaye tamit def asbaab sabab yi nga xamante ne moom la lislaam yoonal boroom xam-xam yi dañoo xaaj li di wakkirlu ci ñetti xaaj bi ci jiitu mooy wéeru bu mot sëkk ak wéer say mboolem mbir ci yàlla ànd ceeg fas sa biir xol ni yàlla kat moom mooy kiy xëcc njëriñ mooy kay dàqalor bile xeetu wàkkirlu ak wéeru képp ku ko jagaleel keneen ku dul yàlla loolu dafay nekk bokkaale bu mag ñaareelu xaaj bi mooy wéeru ci ku dund ànd ak wone ak gestu soxla bi nga ko soxla loolu dafay dugg ba léegi ci bokkaale bu ndaw misaal kenn ci nit ñi mën nga ko laaj mu ne ko yow fan ngay jëlee alal bi ngay dundalee sa bopp ak sa njaboot mu ne la ci ngóor gi waaw bu buur bi faatoo ah ndax yow da ngay faatu ndax dangay ngay kon lii benn façon la ci sukkandiku ci ku dund ànd ak wone soxlaal bi nga ko soxlaal loolu dafay mën na tàbbi ci bokkaale bu ndaw kon la wér mooy nga wax ni ah man de ah, damay jël sabab ci liggéey bi muy liggéey ci nguur gi waaye nag kay wërsëgal dëgg dëgg dëgg moom mooy borom bi azza wa ñetteelu xaaju wàkkirlu bi mooy li ñuy tuddee alwakaala mooy comme genre euh, tegoo kenn ngir mu taxawal la ab jëf wala ab liggéey loolu dana wér loola tax dana dagan nga wax ni ah, euh, wékku naa diw ci mu daal di may jëndal oto wala mu daal may jëndal portable ngir moom mu moo lay foofu foofule ngir jëndal la ko loolu dagan na waaye nag du dagan mukk nga ne wàkkirlu naa ci yàlla topp diw kon boog naka ngay mën a waxee wàkkirlu naa ci diw kon ngir wàkkirlu moom jëfu xol la loolu tax yàlla mu ne jullit ñi wa alallahi fatawakkalu in kuntum muminin nangeen ngeen ci yàlla bu nekkee gëm ngeen mu waxaat tamit moom yàlla ni képp ku wàkkirlu ci yàlla yàlla moom aji doy loolu dafay wane dëgg-dëgg ngëneel bi nekk ci wàkkiirlu ci yàlla yonent yàlla nuux alayhi salaam wax na ay nitam ñi bu nekkee sax bi may sax ci yéen dafa diis ci yéen li ma leen di woo ci tawxiid ak tudd leen aaya yàlla yi loolu dafa diis ci yéen na ngeen pexe na ngeen boole seen pexe yépp na ngeen boole seen pexe yépp te bu leen yéex ci Fatma te bu leen ci nëbbu bu mu yéex yonent yàlla nuux bi mu waxee loolu ndax lor nañ ko déedéet loruñu ko waaye yonte yàlla ibrahima alayhi salaam tamit biñ ko sànnee ci safara dafa xasbi allahu wa ni'mal wakil loolu te kàddu googu tamit waxoon na ko yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci xew-xewu xare Uhud